wa barakatu euh, Serigne Moustapha di xalifa Cheikh Mouhamed Lamine Bara di di jëwriñ ñun ay dong lañ rek loo wax rek la wax <laughs> waaye waaye xalifa gi yàllaa ko def <laughs> ñëpp ñëpp bëgg ci loolu la ko mbàkkee di ñaan yàlla mu yàgg euh, ñëw nañ fi tey jii ci ndigalul euh, président de la république ngir seet si màggal ak liggéey bi fu mu toll fan yëpp ñu gis yëf yi ni nga xam noonu lay doxee sëñ Cheikh Thioro ànd ko ak gouverneur ak préfet ak sous préfet tey mën naa ñëw seet si la nemmeeku ndax bis bi day bis boo xamante ni bii da ko da ko yitteel ñor ko loolu moo tax mu ne naa jiitu si ñu xool ko ndax délégation bi bu ci àndee suba ci timis ci li ñu ngir. siyaare si la indil li nga xamante ne bii mooy kaddu yi nga xam ne moom la président indi. waaye lii dañoo jiitu si woon rek ngir dayo bis bi ak màggaayu bis bi ak yitte ji nga xamante ne bii am na ko ci kër gi ak li nga xam ne seq na ko ak yow. te loolu jóge woon ca sa wéjur baax wa di Cheikh Sidi Maxtaar nga xam ne kenn du ko fàtte ndax liggéey bëri bi nga xam ne liggéeyal na ko Serigne Touba loolu moo sabab ñu dikk fi tey jii ci turam dikkaale ki turu sa xarit directeur de cabinet Makhtar Cissé moom itam mi ngi leen nuyu bu baax di la di la sant di la gërëm moom itam doom la ci kër gi di di doomi sëñ bi kon sëñ Cheikh loolu rek mooy kaddu yi dañ doon nemmee ko si rek waaye bi njëkkati moom wax nañu fi ñu toll fépp wax njàmbaar goo xamante bi administration bi nañ ko ci yëf yi waaye lépp ko def rek ci digalu kilifa lañ ko defee kon ñoom itam ñu ngi leen di sant di leen di leen gërëm kon daal sëñ ñu ngi lay sant di la gërëm loolu rek ma nekkoon tànk yi jërëjëf jërëjëf